انا Assalamu alaikum. Allo, allo, allo Est-ce que le son est bon? Est-ce que amna ko confirmer ni le son est bon? Est-ce que le son est bon est-ce que son bi est-ce que son bi ah oui est-ce que le son est bon le son <clears throat> est-ce que son bi D'abord, na dama nekk foo de réseau du du baax quoi moo son bi c'est bon hein? super super

mu nek ay leral yo xamni leral yu ama am solo la te waxam je pense que limu meusa mës a waxagum yépp bii moo ci gëna leer bi mo ci gëna gëna leer te li tax mu am solo moy mom mi nga xamni mo moo gis aju sa aji sar bi ciowli amé nga xamni gisuko une semaine gisuko fukki fan gisuko ñaar fukki fan gisuko ay wèr bi mu amee matul ay waxtu ci la ko gis donc moom li muy bind kenn mënu ko weddi spécialiste la ci domaine am te li mu bind juge munu ko dindi keneen munu ko dindi dañoo yàgg a wax ni dossier bi dafa vide ñu ñuy weddi di ñu weddi euh, may ñu ki nga xam ni moom mooy ndeyu mbilli gi mu wax li mu bëggoon a wax yépp muy le docteur Alfousseyni Gaye ñu gis ni dossier Adji Sarr bi lu tax mu doy waar mooy lañ waxoon te procès bi wane ko mooy amuñu preuve amul benn vidéo boo xam ni ñu ngi ko doon xuuxale nit ñi di ko dig nit ñi naan bisu procès bi lépp dina génne boo xam ni am na donc nangu nañ ñi vidéo amul ojo amul li gën a doy nag mooy ñépp ñi nga xam ni ñoom ñoo fekkee woon affaire ba muy ba jiñaate bi bi muy am ñu gënoon a jege mbir mi muy ki doon liggéey ak Adji Sarr boroom këru Ndeye Khady Ndiaye mi nekkoon ci kër gi docteur gynécologue Alfousseyni gay mi ko gis ak capitaine Touré amu ci kenn kenn koo xam ni mën naa dëggal li tuuma yi mu teg ci kaw Ousmane Sonko amul donc mu nekk léegi nag ñu ne dañuy indi preuve scientifique parce que moom moo nekk ca kaw preuve boo xam ni docteur moo ko génne loolu moo nekk ci kaw lan la docteur Alfousseyni Gaye wax démb bi procès bi jallé ñu gis média yu bari yu and ak nguur gi commencé nan dafa gis man niou bi muy sét aji sar man ñenn ñi sax bind ni man niou bi mu gis ci euh, kanamu aji sar boko néna sax daf ci gis ay walax ñaar ay spermatozoïde ñu bëgg indi ay léral yu am solo parce que tay dossier bi mom bu faranku laayul won tay mom dossier bi jeex na kenn tu ci indi ben ben ben. Tout nit mën nga ko teg ci dara amul juge amul magistrat amul procureur amul kenn koo xam ni sañati ngaa wax dara Ousmane Sonko ci dossier bi lan la ju lan la gynécologue bi wax tey nee man ma njëkk a seet avant muy déposer plainte ci le 2 février 2021 man ci l'a ko gis ma def ay prélèvement jox ko ñu yobbu ko ci laboratoire ñu xëyaat suba gendarme indiwaat ko ci man ma seetaat ko deuxième fois lépp xew ci vingt moins de vingt quatre heures avant événement yi mu wax ni dañ ko doon siif dañ ko doon sàkku ci ci loo xam ni du coobareem moom nee na man de bi ma seetee Adji Sarr li ma mën a wax mooy bi ma ko gisee kiñ ma waxoon ni déjà dañ ko violé ma ngay sonn dugg na fii gisuma ku ma niru ku feebar loolu la njëkk a wax nee na wax dëgg yàlla kiñ ma wan mu yore téléphone am di ci fo niruma koo xam ni kat dafa am lu ñuy wax ay traumatisme physique wala psychologique fekkuma ko muy jooy fekkuma ko mu jël loxoom dugal ko euh, boppam képp sangu ko ci fenn comme ñi ñu xam ñi nga xam ne dañ leen a violé wala nga gis ko mu dugg ci douche di sangu di sangu di sangu di sangu signes yooyu yëpp fekk ma ko ci moom ki ma gis nit ku normal la di kaf di ree di fo te boobu nee na ñu ngi koy soog a soog a euh, violé ci ci li nee na bi ma ko dugalee ci sama cabinet examiner ko maanaam ma seet ko bi ma gisee kanamam gisuma ci lésion vulvaire ñu ne ko loolu mooy lan mu ne képp koo xam ne dangaa séq ak góor muy sa cooba li sa coobare ak lu nekkul sa coobare lu mu ndaw ndaw ndaw war nañ cee fekk ay lésion loo xam ni ku ko xool ci gynécologue ci surtout ci saa si la ci saa si xaaruñu ba suba wala ginnaaw suba danga ciy fekk loo xam ni dina mel ni dina la wan ni kii kat mu ngi soog a seq ak góor léegi wala bi mu seqee góor yàggul nee na man gisumoko kenn munuma forcer ma wax ni ndaw si ma gis physiquement ci ni mu ñëwé ak ni mu comporté wo dañ dafa dañ ko violé mais man ki ma gis gisuma ci lo xamni firnde la ni góor gi mu wax dafa seq ak ñom seq na ak mom nee man de gisumoko man gynécologue bi tamaa ko ñëk examiner nee benen bi gisuma ben yon man yu ci kanamu aji man mi nek sequl ak kay ci nan laa ciy gisee man yu xanaa man yu bu yàgg nee na gisuma ci man yu nee na waxuma nag wallax jaan li ñuy wax spermatozoïde ci biir man yu kooku moom munul nekk ndax bët bët munul gis ci sper ci spermatozoïde ci ndoxu góor ci man yu munoo cee gis ay wallax jaan yi noonu loolu moom yàlla yàlla may ko nit may ko bët bët munu ko gis il faut ñu yóbbu ko ci laboratoire ñu xool ko ci ay microscope yu ndaw donc li mu wax tey lu am solo la nañ ko jàpp moom Adji Sarr bi mu njëkk séen mu yore téléphone am di ci fo ñu ne ko woon dañ koy violé menacé ko niruwul ku ñu menacé niruwul ku ñu violé benn. ñaareel bi nee na moom bi mu ko examiner tey loolu la bind loolu la bind parce que nee na médias yi ñu ngi yàq ay waxam ñu ngi koy wax loolu waxul nee na. Adji Sarr mi ñu ko wax dañ ko doon violé menacé ko kay arme traumatisé ko nee na man ki ma gis niru ma ko ñu violé benn constat beneen bi bi ma ubbee kanamam yër ko xool ko fekkuma ci lu niru ni kii kii kii dafa seq ak góor ci diir bi mu wax gis naa ni yàgg daa xam na góor bu yàgg yàgg ndax ñàkk na ndawam bu yàgg waaye jamono ji ma ñëw mu tiim ko nga xam ne ay waxtu la après bi mu nee dañ ko violé kii moom sequl ak góor wax dëgg yàlla gisuma lu niru na sequl ak góor moom nag gynécologue la nee na li ci topp man musumaa gis ci biiram lu ñuy wax man yu góor gisuma ko waaw gisuma ko ci sécrétion vaginale manam amna luma lu ci mom ndax nit ki bu nee dafa violé dañ ko risque infection sexuellement transmissible Nous wax IST wala ay MST maladie sexuellement transmissible comme ay sida parce que nous mom des sék qui ak mom ta ñu donc foog nga joxé ko ñu analyser la pour mesure de protection Nous avons man lila lii gis le 2 ci Madame, gi maanaam gi aji ne dañ violé man mako man donc niruma ku ñu fekkuma ci mom lu niru ni gisuma ci man yu gisuma ci walax jaan yi ci man yu ma ci ni certificat euh, prélèvement yi ma def ci goudi gogou man sama jëm bop xamna ni baxul parce que man bima ko dama jël sama ben agent rek jox ko sous scellé ni ñuy lo da reconnaître manam yow man li nga li nga parce que comme que man violé wuñu ko jëluma mesure de protection dama ni nañ dem rek laboratoire pour ñu ndax maladie sexuelle wala infection mais comme que man gisuma ci viol ah jëluma mesure de protection yi ñuy wax manam ñu def ko euh, euh, anam da koy laboratoire lu ne ko ci même kanamu jigéen mën nga ci fekk sperme fekk sëyu la góor bi ko juge bi laajee loolu nu mu mënee nekk nee na moom juge Alfousseyni Gaye moo ko wax de te loolu la bind nee na bu dee mën bu dee damaa fekk dañoo fekk sa kanam man yu li ko mën a indi ñaar la bu dee da ngaa sëy mais nee na boo sëyul mën ngaa jëleel sa bopp man yu nga injecté ko yow nga dugalal ko sa bopp sa kanam nee na man yu même buñ ko fekkee ci biir n'est pas le résultat de Sey. Sey, bo le dañ ko daf ko def légui bu yow comme que bind nañu Seyul moy man bi même buñ ko ci féké it mom moko dougalal injection la bind ci texte par relation sexuelle rapport sexuel wala par injection Manam dañoo jël dara dougal ci man yu kenn fu mu prélèvement mu def le deux yóbbu ko laboratoire ba ñu ni ñoom gis nañ ci wallax jaan spermatozoïde ak ay wallax jaan yuy dugg nee na moom waxu ko bind ko kooku laboratoire bi moo ko bind laboratoire bi la engage moom ay prélèvement la ko jox nee na moom gisul ni kii sëy na léegi nag la dugal ci kanamam ay spermatozoïde maanaam man yu góor nee na kooku moom mën naa jóge fu ne moo tax mu ne prélèvement yooyu baaxul bu ko bu ko kenn moom moom du ko garanti kenn engagé wu

Euh, defal ñu prélèvement nga jox ñuko ñun ñoko yobul suñu laboratoire jël ci lu ñuy denc pour contre expertise manam ñu respecter procédure légale et réglementaire juge bi euh, euh, docteur bi bobu le lendemain le 3 Ta gendarme yi indi Bobu na lu ci nek mom moko bind te lim ci changé ci dara absence de lésion vulvaire nee mom moom kenn mënu dit ni ak loolu la bind te nee na euh, des prélèvements yi ñu ci bind ont été faits en vue de test ADN nee na moom bind ko ci de nee na gendarme yi réquisition bi moo bind boo liiree réquisition bi gendarmerie def am na fu ñu bind NB ci suuf ni ko defal ñu prélèvement pour test ADN moom moom nee na musu ko cee bind dañ ko ko sant réquisition bi moo ko bind gendarme bi rappelé ko ni ko yokk ci loolu yokk ko ci mais moom mu desoon ci moom rek certificat médical la koy jox bu wanee ni séqul góor mu dem ñibbi donc lepp luñ ci créer après après la légui nak yow juge xam Diallo ak procureur Bassirou Gueye yeen ngeen ñew defal Adji Sarr prélèvement le 2 le même médecin defaraat ko prélèvement le 3 ngeen jël bi nga xamni le 2 la te juge te médecin bi euh, gynécologue bi néna mom moom garanti wu ko ngeen bàyyi le 3 légui li ñuy laaj justice ana prélèvement yi ñu def sur réquisition gendarmerie ana ñu ana prélèvement yoyu nga xamni mo moo baax te diggante biñuy def le 2 prélèvement ak le 3 prélèvement mais man yu bu fa nekkee dañu bu amé wallax jaan yu dund ay spermatozoïde deewuñu mënuñu dé parce que ñu ci biiram batay li moy problème dossier Adji Sall wa waaw jiñ nga nit euh, ndaw si nga doon liggéey ndol na jëkkëru ka nekkon ci kër gi weddi na te ñooñu ñëpp xamanté wuñu yëgante wuñu euh, gynécologue bi weddi capitaine bi doon def enquête bi weddi légui Macky Sall ak nguuram ak juge mi ñoom ñoo bëgg ni viol viol am na lii kenn su koo gis mu nekk lu doy waar donc papier bii tey li mu wax mooy Adji Sarr musul séq ak góor bis biñ ko indee ci kanamam te juge moom moo jël responsabilité bind ko donc bu fi kenn waxati séq koo séqalul nag mënul am viol léegi ñoom nañu def parce que Adji Sarr mu ngi ko doon wax ci audio MC Niass yi nee na Ousmane Sonko dafa ñëw dem ma woo leen ni leen Ousmane Sonko mii kat ñëw na dem deful dara ñu ne ko bul ñu fontoo demal nga outil sperme loolu ñëpp dégg nañ ko ci audio yi sperme boobu nag fu mu ko utee nañ ko seet xëy na ca kamu àndaloon waaw parce que juge bi nee na sperme moom ku mu neex nga dugal ko sa kanam te doo seq ak góor léegi nag sperme yooyu ak euh, kii yooyu boo laajee ñu ne la réer na donc toute l'accusation maanaam juge bi procureur li ñu yóbbee Ousmane Sonko chambre criminelle du témoignage du vidéo du audio du certificat médical du dara mooy prélèvement yi ñu def le 2 moom la réquisitoire procureur bind prélèvement yi mu def la 2 ñu ne ko waa yi li ñu def le 3 te gendarmerie fekke ko yore ko yooyu nag lu tax jëloo ko boobu yéen juge euh, gynécologue ci wax nee na lu leen neex mën ngeen ko cee def lu mën ngeen cee yokk lu ne moom boobu engagé wu ko léegi wax ji tëddu na farankulaay na média yi ñu Macky Sall ak njabootam ngi yabal pour ñun nërmeel xali xelu nit ñi xam nga ki ki toog certificat médical nga ni dangaa ngaa sëyeeg euh, góor mais yow yamoo ci dafa sëyeeg yow ci kanam nga ni dafa sëyeeg yow ci ginnaaw gynécologue yi xam nañ li ñuy wax koo sëyeeg ci ginnaaw mais boobu parce que foofu du sëyukaay comme que du sëyukaay loo fa def dafa naan fang feeñ kooku moom gynécologue bu la ubbi daal di yuuxu surtout nag loo xam ne du sa coobare ndax foofu du sëyukaay yow gynécologue bi mus ngeen a gis fu gynécologue bi ne Adji Sarr bi mës nañ ko seeyeg ci ginnaaw ak nettali yu bon yi mu ci nettali léegi nag waxu viol amul procureur ci boppam démb Ousmane ko teewul nekku fa avocat am nekku fa Ndeye Khady Ndiaye amul avocat donc procureur Macky sàll moo fa nekk ak juge Macky sàll ak euh, maître El Hadj Diouf pendant de dix heures ba deux heures wala trois heures du matin wax nañoo wax ba pare wuñu benn preuve convaincre nuñu benn sénégalais ni dañ ko violer liñ ko jangalon mu tariko depuis ay wéra ngi ni muy jël ay cours ni ko nettali ni Ousmane Sonko ku bon la daw ñëwé daf may tëdd ci ginnaw daf may wax yu ñaaw nettali yu bon a bon a bon bon bon ñu ne ko wa ana vidéo ya nga yoroon ana vidéo yi ana vidéo yi da nga ni won yor nga ay vidéo yow sax waxal nga sa bop ni man de suma yobul vidéo dinañ ma tecc ci ci tribunal ba génné wo benn vidéo donc tout ça pour ça ngeen sonal nit sonal sénégalais euh, ay fat, faat ci accusation bo xam ça ne tient pas la route amu leen sax élément matériel Nan ko dañ ni la defal test ADN No fay defal test ADN ana résultat yi bu doon juge bi dafa indi ni yi ay sele la man ma yoré sele ana sele yi bo waxé ko laaj ana prélèvement yi ñu ne la réer na ci ngeen ko basé ab laboratoire bo xam ni euh, nee na moom résultat yi ñu ko indiloon gisoon nañ ci ay spermatozoïde mais loolu mën na basé ab ab ab accusation ba yàq ab réew bay nërmeel ab réew ñépp xam nañ ni bu ci dëgg nekkoon lii bu ci dëgg nekkoon réglé nañ ko bu yàgg yàgg yàgg ndax viole bi bi muy am bi muy porter plainte ak bi ci juge gynécologue biy dugg ak bi ci capitaine biy dugg dafa jegeyantoo matul ay waxtu kon viole bu amoon day yomba réglé tey yépp a ngi nii yàq nañ Sénégal tas nañ réew mi jaay na nit ñi doole ay bakkan faatu na ndekete téyewu ñu dara dara lii lépp def ko uniquement pour mën a éliminer Ousmane Sonko mi nga xam ni def nañ sondage mu ne leen da leen di duma te su leen gañee càcc gi ngeen sàcc xaalisu réew mi yépp dina dal seen kaw lii kese tax Macky Sall tiit pendant ñaari at nga jël état jël armée moyen militaire institution lépp contre benn nit ak benn parti te teewul nit ñaa ngi koy gën a jàppale

Adji Sarr xaritam xaritam bi mu recruté di Mama Ba nee na ko waxoo dëgg ñi ko wër ñëpp nee nañ ko waxoo dëgg vidéo ya mu waxoon waxul dëgg ëmb bi mu waxoon waxul dëgg donc moom yàgg naa wax lu dul dëgg léegi nag Sénégal dafa war a avancer dañoo war a avancer dossier bi pare nañ ci ñun leen Ousmane ko waxoon seen procès bopp la te yéenay weer seen bopp man teewuma tribunal Ndeye Khady Ndiaye avocat am teewul te fexe nañ munoo leen a fexe ba teg. lo xamni ne ci bop nit ñi parce que nit ñi am nañ xel ni dañ ko violé légui nak ñàkk viol bi du tax Macky Sall li li moom décider liquidation Ousmane Sonko bi principe la bo gisee juge bi le taxagne procès bi nday Khady Ndiaye ëmb ñu ne la renvoyer ko dafa ëmb loo yàkkamti mu ne dina ko juger par la force 15 personnes la waxoon ño waran témoigner Mamour Diallo ñewul lu tax jëliwul Mamour Diallo nee mom dina taxagne affaire bi ci goudi gi lu mu goudi guddi dina forcer presse ndax lan le 1er juin la wara rendre délibéré lan mo xew le 30 mai le 30 mai Macky Sall day ubbi dialogue bi foog ñu condamner Ousmane Sonko pour forcer ko dialogue Ousmane Sonko foog ñu condamner ko pour mën ko forcer dialogue li moy sen projet li kese la procureur ci bopam nee ci réquisition li mu bind nañ tej Ousmane Sonko fukki at bu da violer mais nee ah xaaral bu violer wul nak bu dee euh, juge bi gisoo dal daal dafa violer top ko pour corruption jeunesse muy délit délit délit corruption jeunesse manam mom dafa dafa ñew di participer ci ay xalé yu jaay seen bop. Manam ñom liñ topé day xadi ñay moy wané ni Adji Sarr mom da doon jaay bopam mais ñom Adji Sarr intéressé wu leen nañ ko yàq seen yoon nekku ci donc tay fi le réew mi tollu li lañ bëgg viol buñ ko ci condamné wul parce que mënuñu ko amuñu preuve donte lay ñewul défendre bopam nañ ko topp pour corruption de la jeunesse kenn xamul sax muy loolu ndax corruption de mineur lañ doon xam xëy na corruption de la jeunesse maanaam Ousmane Sonko day yàq ndaw yi ndaw yi jeunesse day yàq ndaw yi donc euh, mbir mii laa bëggoon a def live bu ndaw wax nit ñi nit lii bindum docteur bi la kenn mënu ko kenn forcé ko moo waxal boppam nee na gisuma samay gët mayuma bi ma xoolee Adji Sarr ni kii dafa séq ak góor ta man maa ko gis waxtu lu tolloog waxtu bi mu ne dañ Ousmane Sonko da koo sàkku lu tolloog waxtu léegi nak lan mo fi jaron li procès bi yeb menacé nañ ko titel ko ba waxul demb dem na tribunal ñu jaxase ay waxam legi nak limu mu wax a ngi ban magistrat mo meun ni sama yon nekul ci bu doon dañu dekk bu baax lañu nek suba magistrat bi ñi bëgg atté àtte Sonko dañoo waroon euh, gynécologue bi convoquer ko bu dee dëgg rek mo leen ñor

parce que léegi dootu responsabilité waa Pastef Pastef moom li mu mënoon xeex xeex na ko de ñaari at a ngi nii benn parti di xeex ak gouvernement gouvernement jaar ko fu ne jël lu mat ñetti téeméer ci ay plus de cinq cent militants tëj ci kaso bi toj oto Ousmane Sonko barricade këram jàpp suñu ndaw yi ñi ñàkk seen bakkan ci suñu manifestation yi parti bi la bokk. parti bi xeex na de moom wàllam ci Sénégal def na ko te mat na mat na wax dëgg yàlla mat na. léegi nag benn parti kese mënul xeex ak nguur te population bi jàppalewuñu ko te li Ousmane Sonko projet bi mu yor ñoom ñu bañ mu def ko mooy lan li ñu bokk muy alalu réew mi nañ fexe ba ku nekk jot ci ñoom nag nee nañ pour alalu réew mi pour ñoom la ak seen njaboot donc population Sénégal jël leen seen responsabilité ginnaaw gynécologue bi wax na génn leen ku ci xam sa sëriñ na nga ko saisir ku ci xam imaam na ko saisir ku nekk na nga saisir Pare len ak pou defandout Ousmane Sonko. Proje likidasyon yi doy nan. Dezorme, li lan yi don wak. Prose, prose, nan wouji, nan wouji, bou yi deme, bou yi deme, dinen genne videoyi, dinen yi len wan, wan ou len yi, tous, legi, jina kolok bi genne nan ena darakhe ou fi. Afer bi dal nan lèr. Bou yi ken nan nakati, bou yi ken nan fo. Populasyon yi nak, bou yi en begge, makisa lou, toga atire ou mi, jino mi at. Son alat yi, li men son alet yi nyop, ti njang mou bon,

moo ëpp li am tracteur ci dëkk bi est-ce que réew mën na dox bu dee alal ji nga yor yëpp da nga ko détourné ci force de l'ordre yi pour booy def sa troisième mandat ñu jàppale la ci sénégalais yéen a moom yéen a yore souveraineté xeex bi pour suñuy doom la pour seeni sët du xeexu Ousmane Sonko ndax moom bu toogoon fa mu toog dina lekk ay milliards am jàpp njàmburam def ni ñoom léegi nag fekk si leen Pastef fekk si leen F24 ci xeex bi nañ fexe ba mandat bii mu bëgg a teg du ko teg danañ empêcher liquidation Ousmane Sonko waaw population bi ñun ñoo yore souveraineté la souveraineté populaire la ñun ñoo ko yore lii daal ku gis dëgg nag sa mooy nga fexe ba dëgg taxaw ndax réew noonu lay doxe waaw yàgg nañoo sànq sunu nit ñu baax ñi Afrique moo tax développé wul bi ñu jëlee indépendance ñi gënoon a am xam-xam ñi gënoon a dëggu ñëpp fexe nañ ànd ak tubaab bi ba faat leen que ce soit Thomas Sankara woo que dëkk boo dem ña fa ëppoon xam nañ leen. bàyyi ay pantin jiite Afrique ba heure bi ñu dellu ginnaaw te yàlla may ñu ay richesse loolu nag la Macky Sall bëgg a def ak Ousmane Sonko tey nag na population yépp ni ko nag arrêté il est temps de dire non à Macky Sall fu F24 wootee ku nekk sa jaamu yàlla bu minimum boo mën a amal ak boo yoreel sa réew bu F24 wootee na ngeen génn manifestation bu ñu wootee na ngeen génn waa feesal manifestation yi xam ni temps am jeex na ni ko doyal nañ ci yow doyal nañ ci yow. tey nag waxu viol bi farankulaay na gynécologue bi génn na bind na loo xam ni kenn mënatu koo dindi Adji Sarr kenn musu ko violé ay caaxaan ngeen yore woon réew mi ay caaxaan ngeen nekk ba nit ñi ñàkk seen bakkan léegi nag sénégalais yi ñoo war a jël seen responsabilité nekk bouclier autour de Ousmane Sonko empêché Macky Sall projet liquidation bi mu matal ko mu ngi jàpp rek di xuuxatal sëñ Saliou Guèye naan koy nekkoo journaliste yow doo xaar ba SYNPICS ba syndicat SYNPICS yi porte plainte képp koo xam ni jàpp na ni mën ngaa wax lu ko tiital rek appel à l'insurrection ku ne mu tëj dëkk baa ngi mel ni dëkk pays en guerre bopp koñ boo dem fekk fa ay blindé ndax la tiit na tiit na nguuram léegi mu jeex chaque jour bu yee woo xam ni fukki fa fukki weer a ko dese chaque jour bu yeewoo xam ni juróom-ñeenti weer a ko dese ba pare xam na ni li mu bàyyi baaxul du ci droit de l'homme du ci développement du ci gestion ressource lépp moo yóbbu fit bi tiit na ndax nguur gaa ngi rocceeku ndànk-ndànk mu koy gis muy dem mu ne nak suma suma paré fuma jëm man xalé la te yàqu rewum ligéyuma fi lo xamni ni Sénégal yi dinañ mako ko touché détournement yi bari na te jàppuma samay ñooñ moom mënul protéger bopam protéger ñooñam Sénégal sénégalais yi c'est votre responsabilité jeunesse bi c'est votre responsabilité désormais liñu wara a wax Macky Sall mooy doy na défal sa mandat ba mu jeex nga abal ñu suñu rew ñu indi lu bess wa défal sa mandat ba mu jeex ci jamm

ku médecin ni sa xol moy metti yow da nga am problème cœur est-ce que di nga nangu juge ni la wér nga demal kenn du ko nangu liñ nanguwul ñun suñu bop ab juge diko def juge walu yoon la xam xam dara ci médecin médical waaw tay ji bu le médecin né bi feebar mo la dal juge bi ne la dédé benen mo la dal médecin bi ngay top donc na ñëpp déglu médecin bi ñu xam ni verdict bi verdict médical mo gën verdict judiciaire waaw wax ji farankulaay na nos population yi pare apporter leur soutien à Ousmane Sonko pousser les magistrats ñu àtte seen aqulay taala waaw gis ngeen ko ni muy wëre fune lay wër consultation à domicile jëlee ay ministre ay ay magistrats ci ci ci ministère, yi lu né lay def pour djéma sanctionner pour djéma liquider Nako ñëpp bayi xel euh, ma ngi djéggelu ci cadeau yi lu ci ëpp ma ngi koy djéggelu, di ñaan Yalla défal ñu jamm, Yalla may ñu ndam